ko gisee man dama toppoon ci gannaaw oto bi dama ko féete woon gannaaw léegi oto bi dama bi ñu demee ba tolloog ndox mi ci garab gee dama jékki-jékki rek gis euh, kees oto bi nekk ci euh, ñu dóor ko ci kii bi ci garab gi ma gis benn pa ba xam ne mu ngi ci kees bi euh, ndax bi daa tëggee ko spécial ma gis benn pa mu ngi diree ci suuf ci di diree ci suuf ci ndox ci ndox mi waaw loolu daal gis naa ko ci moom oto bi lim doon daw waaw maanaam bi ma topp ci moom moom da doon double nii di daw waaw ndax man dafa dama man man duble na ma doublé yeneen oto waaye daa daa daw waaye kanam gi moom yàqu daa da ko dóor ci ci ci bi maanaam actuellement moom maanaam xaw ma heure bi waaye ci ci jamono maanaam mun xaw ma heure bi daal wax dëgg yàlla ndax xooluma ko woon wax dëgg yàlla. ban heure la def heure bi moom maanaam moom ci ni ma ko gisee moom daa daw lu ëpp. far mu daal ci garab gi waaw nee nañ daal benn paa bi moom ñàkk na ci bakkanam waaw maanaam li ma ci gis moom war na ëpp juróomi nit daal ah.